Adé Abdou ma Diop ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ñu dalal ma du Mouhamed Ndiaye. ci la ngeen jëf amee coronavirus ci mim réew boo ca wéree coono la boo ca faatoo coono la anki dina kay nañu coronavirus bi joo xam ne dafay fitnaal nit ba ci biir koy firndeel yéen kay bi nañu moo di li xew fan yi ca ñu yóbbu leen bëgg leen a denc ci armeel yi ñu leen bëgg a denc askanu gox ba jug ne kenn du leen fa suul ko mujjee def di askanu jàmbagën si ka mbaaw socio anthropologue bii di Waly Diouf xamal waa anki dina kay ne boo leen déggee ñuy wax da ngay xam ne ak tiitaange ak ragal musiba moo leen tax di wax njiital SNEIPS yéenekaay bi ak tiitangeeku jaaxle moo ca mën a ñàkk ndax képp ku faatu ci coronavirus bi néew bi sapeur pompier dinañu ci def lu war ba armée yu ñu ko mën di suulit du fa sulli benn danse mu ne li xel mënuta nangu moo di am ñu taxaw ne doomi Sénégal ya faatu bitim réew ndax coronavirus bu ñu leen bàyyi foofee nañu leen indi ci réew mi suul leen ñu nangu leen ko ba pare am ñu bëgg a taxaw ne ñi faatu ci coronavirus bi kenn du leen suul te seeni armeel al Alassane Sall gouverneur bu Ndakaaru ne ci la Sénégal loolee du jëfi sénégalais te it du jëfi jullit kon jëfi lu mu grand place ñu weesuwul jëfi nit ku tàggoo ak sagom général de brigade Mor Seck di leeral ci grand place ne bépp néewu coronavirus bu ñu jangti-jangtee jëme ci armée rek nañu xam ne lépp lu duy matuwaay jël nañu ko ca ki ñu bëggoon a suul keroog ci armée di jàmm gën si kàmbaaw yi te ñenn ci askano jugéen na kenn du ko fa suul mi ngi ci l'observateur ubbil yéenekaay bi Moustapha Guèye la tudd ñeent fukki at la amoon newoon marchand ambulant moom dem si yàlla Moustapha Guèye l'observateur nee nañu ko soppoon loolu mi di Moustapha Guèye tigre de Fass ba woon ay mbokkam nag nee woon kon ci hôpital la ko dale ndax moom ñaari jàngoro yu mu doon sooxaale la ñu xamoon asma ak diabète ñaar fukki ak lu teg mi ngi sooxaaleeg ñaari jàngoro yooyee kon tey bu ñu nee dafa corona te coronavirus bi moo ko rey nañu xam ne corona bi mi ngi ko jëlee ci l'hôpital ba ndax ñoom ñi di mbokkam musuñu ko dégg ci moom moom mi ñu ne woon kenn du ko suul ci armée jàmm gën si yi la Sénégal wax nañu ne ñi waxoon loolee ba ndi woon fa fitna caxat-caxate woon watab service di seen baag bu courant rouge ba am na ñeent ci ñoom ñoo xam ne togg fitna ñëpp sapeur pompier yi bu amee ko faatu ci coronavirus bi ci fukk ak benn lañu ñaar ñoo faatu démb kenn ki genn góor la gu tolloon ci juróom-ñaar fukkeet ak juróom ca l'hôpital Ndamaatu bu Tuubaa la faatoo journal bi gis na jàngoro ji bu doon day dox ci réew mi léegi mi ngi waaxu mi ngi dëgg tànk yu dëgër di dem ñu dëgg tànk yu dëgër dem ci Vox Populi ay xultoo ki ñaxtoo ki njàmbat la xëyee mi ngi ko jëlee ci ñenn ci askan yi duggoon dimbal ak njàppale ci jamonoy coronavirus gi ñooñee yaakaar ju tas mer mu rëy ak jaaxle la ñu boole jamono ji li ñuy bañ moo di toog di xaar ak séntu ndimbali ba coronavirus bi far jeex ci réew mi Vox Populi nañu muy ca Ndakaaru di ca Tëngéej di ca Kees Kaolack jàpp li ngeer nee nañu ceebu Macky Sall bi gisuñu ci sili mii na kuntum aala mii na badar xetu ceeb ba sax xeeñu leen kenn ci ñoom di moox sekk nañu ci journal bi xëy na ceeb ak dëwlin yi Macky Sall woon Mansour fay waroon koo séddale dafa réer ci àll bi Bakary Ndiaye di keneen nañu ci journal bi moom kay nañu ko nangu rek guvernement bi jaarati nañu ci suñu kaw dëgg nañu wëndeel defati nañu ñu ko dóorati nañu beneen borom kër bu doon séntu ci ndimbal loolee te gisagu ca dara di mbay gi ni ñu ci nekaay bi moom li mu gëm moo di gaañe séddu nañu xaalis bi bu yàgg Mansour Faye mi waral coow leen bambali nañu ci xët mu njëkk Vox Populi dañoo amee ay jafe-jafe ngir mbiri ni ñu ko bëggee woon mu demee noone ci noone suur soo xamal nañu ne moom Mansour Faye wute wut ak ku dëgg loola ne moom Moussa Faye coow lu mu fay rek leneen tàkka vingt lekk na coow lu rëy diggam ak l'hôpital réew mi ndax dañu ko santoon mu jël fanweeri milliards ak juróom ci fonds force covid 19 bi def ko ci bor bi agence nationale couverture maladie universelle ameel hôpital réew mi waaye fukki milliards ak juróom la ca def gorom ba di Macky Sall lu muy def Sud Quotidien bind ne lu jëm ci état d'urgence bi couvre-feu bi am ci réew mi takkal nañu ko ci pot ñii nee nañu dafa war a jeex ñi ci def ni gile yoon corps de contrôle yi ci réew mi dugg nañu ci coowal Senelec ak Akilee Les Échos mi ko bind wax ñu ne muy OFNAC di ARMP gannaaw bi leen syndicat cadre yu Senelec si fas nañu yénee lux mbut contrat boobee Mamadou Makhtar Cissé signaloon waa Akilee ca Senelec waa ARMP magistrat bii di madame Tall la tànn ngir mu doxal instruction bi waa OFNAC it jël nañu dossier bi dénk ko service yi ko war a lijjanti ñu lijjanti ji ci l'observateur scandale bu réy bi waa police lijjanti mu di lu jëm ci ci mbir moomee pëlis teg na ci loxo fukki nit ak benn ci fukki nit yi ak benn yooyee juróom-ñeent yi ay mineur lañu ci juróom-ñeenti mineur yi am na ci ñeenti xale yu jigéen ñaari vidéo saay-saay yooyee benn bi ca Sacré Cœur la ñu ko defee ba ca des ca Maris ñi doon gérer ñaari appartement yooyee yéenekaay bi nee nañu jàppale nañu leen libération nañu benn vidéo bi ña ngi ko defee ci résidence Zeyna ga ca Maris benn bi ci appartement meublé bu nekk a tuuti ci xale yi nekk ci vidéo bi fukkeet ak la am leneen lu am ci vidéo yooyee libération nee mooy da ca am mag mu di majeur yoo xam ne ñoo doon coacher xale yi di leen jàngal yëfi saay saay